Franck Daddy Diatta euh, Mbacké fii la dëkk fii la yaroo depuis à l'âge de deux ans juddoo jivant sa aussi mais sama këyit Mbacké moo si nekk benn village bi ma jàngee Yéeri la tudd sama tonton enseignant ma jàngalee foofu donc mu daal di may déclarer foofu pour sama këyit mën a yomb mën a yomb ma dëkk Mbacké fii route de Kayel def fi sama enfance yëpp jàngee fi ba yàlla dimbali ma am bac dem université. fac droit di ñakante nek des délé nekk euh, ay délégué représentants étudiants ba yàlla def mo diriger euh, président de commission sociale pendant trois ans jóge fa ba diriger université C'est la jaaree am tour ba sama engagement politique boole kook syndicalisme ba yàlla def ñu jox ma nomba tank mel dem ba boole ko UJTL donc lool dal moy sama euh, am am maîtrise en sciences juridiques droit public promotion 2015 2016 inscriraat fac lettre, licence professionnelle communication et management nek IAM également master 2 master 2 MBA management des business administratif inscrite également fac droit relations internationales, Sciences Po donc loolu kooku daal mooy Frank da di jatta limu poussé bamu dougal ci politique moy man wax naa ko dama yaro ci koñ bo xam ne injustice ay xat dañuy bañ ay ay kat lañu donc ma nekkoon fi don bañ avec ma manière dem ba yàlla def ma dem université ma découvrir le syndicalisme nekk si ba yàlla may ma si ay nomba tànk ba ma diriger université yëpp am si ay bilan yu bëri satisfaire étudiants yi si ay revendications yu bëri nekkoon en même temps euh, amoon engagement politique dans les PDS parce que ñu fi nekk PDS kese fi am donc nous pensons que parti démocratique sénégalais war nañ si mën a euh, euh, ëllëg am ay nomba tànk yu ne pour suqali suñu gox muy Mbacké Touba parce que Mbacké Touba il faut le dire actif yu dafa ñàkk eh, dafa déssé ay actif bo xolé ni mu mélone ay jëmi jamono depuis Iba Gueye yàlla na suuf sedd si bu ñëwaatoon tay si aduna donc fu mu bëgg dem dina fa dem du réer donc Mbacké avancé wul donc nous pensons que ak suñu engagement politique ëllëg luñu mëna a am dañu mëna participer à l'émergence de cette localité fexe bo bok ëllëg fa ñuy fa nga xamné politique les politiques de ce pays là euh, les politiques d'investissement public et autre chose nañ ko mëna xëccoo jël ñu plaider waa Mbacké. li ma histoire diffamation bu Mambay Ousmane en bon juriste donc mënuma apprécier et eh, xawma les tenants et les aboutissants pourquoi parce que dafa bëri ay manipulation par ci par là donc tay ki wax wax man wax damay juge bi ba jugement procès avocat de la défense ak avocat de la partie civile yëpp taxaw ku si nekk génn li nga yor si ay dossier mu mën apprécier mais li leer ba leer mooy euh, Mame Mbaye Niang nee euh, li Sonko wax amul donc am na droit porter ko plainte Sonko tamit li mu li ko war mooy mu indi preuve si loolu parce que affaire boobu affaire privée la warutoon egg fi mu egg malheureusement ñu ngi ñaalu fi mu egg c'est comme si dañu gis état également bu bëgg pour utiliser affaire bi bëgg instrumentaliser affaire bi parce que dañ ko soupçonner chaque fois bu amé adversaire de taille day utiliser les anglais di instrumentalisation de la justice pour liquider un adversaire nous waral agitation yépp yëpp waral sénégalais yi bëggatuñu li nga xamné que le candidat euh, Abdou Karim le Wade président Karim Wade mu dal ko mu dal Khalifa Sall bëgguñu mu dal Sonko peut-être mo waral agitation bi ci ci côté euh, wa Pastef mais li si mënti am dal moy man damay xaar ba jour jugement ba ku ci nek la ngay indi ci élément un élément de preuve mu mën ko apprécier en bon juge parce que dëkk bi légui manipulation yu bari na populisme bi bari na donc do xam naka la ak nu euh japp bi ñi japp ndaw Pastef yi de manière générale ndawu sénégalais parce que am na ñoo xam ne amaana sax du Pastef mais injuste dañuy xeex parce que dëkk bi Abdoulaye dafa am fu mu ko yóbbu woon ci côté démocratie yóbbu ko ci côté manifestation pour manifester il fallait juste informer ñu indil la ay ndaw alkaati ñu encadré la mais lu ñu gis si gouvernement de Macky Sall mooy bëggul ku ko manifester bëggul maanaam ak ak yelleef yooyu nga xam ne Sénégal téewoon na ko gis nañu ni bi mu ñëwee ba tey salfaañi la koy def

liberté d'opinion de di saaga nit diffamer également ñu donc nous devons également e, exprimer de manière disciplinaire nous devons exprimer tranquillement pour nous pousser à utiliser des propos violents parce que l'État bi sa responsabilité est engagée à ce niveau parce que nous devons ben ndaw exprimer de la manière la plus la plus disciplinaire. Euh, parti démocratique sénégalais du parti buy dee euh, suñu borom moo ko def Ablaye Wade liggéey na ci Sénégal loo xam ne donc du yor parti buy dee je pense que histoire euh, yi mujjee am ci élection yi score bi ñu mujjee am ci élection yi wane na ni parti démocratique du parti buy dee si ay élection la ñu dem 29 janvier élection conseil départementaux ak maire demuñu sax defuñu sax maanaam maanaam campagne. Abdoulaye Wade ñëwul te Karim Wade dafa absenté gis nga score biñ fa am plus de 440 000 voix ñu joggé ci élection yoyu ñu dem élection euh, législative ñu gis ni war nañu and ak intercoalition gis nga biñu amé intercoalition walu lañu am yeewi walu lañu ñu pratiquement de 10 000 voix mom lañ ci yok c'est pour vous dire que PDS dafa am une base affective ñi dem nak, buñu ñu ñu tok mais malheureusement peut-être am nañu leen peut-être yàkkamte la peut-être ambition la mais nous, nous pensons que nous, notre engagement politique doit dépasser nos propres ambitions. On doit toujours cibler l'intérêt suprême. Politique doit faire opposition la nek bu ñu yalla maye ba ñu nek au pouvoir lu ci way mëna nek ding ko nek kon nañu muñ endurance bi Abdoulaye a am pendant 27 ans au pouvoir amaat ko ci opposition de 2012 jusqu'à maintenant ñun war war nañ ko mëna am pour ëlëk mëna jëlaat réew mi Sénégal ci ci émergence bi nga xamné Karim Wade

Touba Mbacké feefu PDS loolu mënuñu koo perte c' est pas possible problème bi ñu am mooy problème de leadership au sommet je pense que opération de vente carte comme ni ko waxee ñu koy def dans tout le Sénégal c' pour réorganiser le parti démocrate sénégalais parce que euh, li ñu nekk def nii du n'importe quel parti moo koy def. 24 lañuy def PDS 92 la ko mujjee def donc bu démé ba diko def lolu moy yéssalat parti bi wat beneen suufu ñun jeune yi nga xamné officiellement amuñu won ay responsable à nos à nos bases ñu am ko donc du parti buy dee parti la bo xamné ne mësa ñëw donc et nous et li koy firndeel moy élection yi ñu mujjee dem fi Mbacké Boy inshallah nous allons nous organiser nous allons encore maîtriser beaucoup plus maîtriser cette localité bi nga xam ne moom fief bi. waaw li ñuy leeral parti démocratique sénégalais du ay du ay parti yoo xam ne barki Dembo Ndiaye la ñu juddu politique circonstance lañ ko def dañoo mer ne génn fippu def politique donc ñoo ñuy wax Mon comportement la ñu war am opposition. parti démocratique sénégalais c'est un parti sérieux un parti responsable un parti bon xam Quel kenn ko manipuler terrorisme intellectuel bi ak terrorisme information bi mënu jàll et malheureusement les les bokku nañ si ci ñi facilité genre discours populiste yooyu muy dem parce que en réalité il s'agit du populisme du jàll chez nous ñun sommes parti responsable ba ñuy xeex kenn xeexul bi ñuy raak kenn kenn raagul la preuve de soixante de soixante quatorze ba deux mille ñun ñoo doon xeex. de pouvoir pouvoir de 2012 à 2019 pratiquement tous les grands combats nous ñoo ko doon mëne te bi ñu koy mënee nit ñi dañu doon seetaan ñaan ñu seen biir la ba ci C25 euh, le front yëpp PDS moo été initié moo été euh, organisé moo été financé à 50 les organisations de l'opposition Il y a du am yeneen circonstances am ñu bëgg tout ce que le PDS a eu à faire ñu bëgg ko c'est de la manipulation ça ne passera pas affaire Mimi Touré mënul tax ñu porter atteinte l'opposition du PDS Mimi Touré si pouvoir Macky Sall la ko président groupe par président assemblée nationale motax mu génn di xalat Macky du sonal ak amul droit troisième mandat moko wax buñu sonal ñun wax am na amul droit am troisième mandat boobu moom mu ngi di défendre troisième mandat donc elle est venue en tant que top pour diviser l'opposition té bi mu ba tay gis ni l'opposition semble divisée donc nañu xolat ñun opposition bi nous ngi lancer un message aux responsables de l'opposition ñu le comportement Mimi Touré filtrer ko l'opposition parce qu'on n'a pas besoin de cette dame là mon base nous indi lenn luñ koy wuñ ko ci politique et article 60 bi tax ñu xañ ko mandat avons ñun la constitution sénégalaise depuis 2001 ku ñu fal si si sa parti politique si bannière sa parti politique tu dois apprendre à être fidèle à ta à ta bannière politique nous avons utilisé utiliser euh, en 2008 su ma juumul Moustapha Cissé Lo son poste de député Nous ko utilisé contre nous nous ñu ne duñ on serait inconséquent et on dit souvent on peut tout soutenir sauf l'inconséquence donc nous waral ñu voté loi mais ce n'est pas sa personne qui nous intéresse ñun ki ñu intéresse, c'est le président Macky Sall C'est suñu adversaire moom moo ñu tong-tongal violenté ñu tëj plus de 100 personnes responsables PDS donc du kooku ñun la ñuy àndal nan dañuy xeex ak mom ku ñu dem démb mënuñu and ak mom tay place am la soxla suñu adversaire nous sommes dans l'opposition. encore une fois nous sommes plus dans l'opposition. nous sommes dans l'opposition

demuñu moom kese moo yóbbu moo moo demal boppam qu'il arrête quoi le bu nekkoon si si si décision si ay APR xanaa kon bi ñu proposé am am amnistie kon dañ koy nangu bëgguñu amnistie parce que révision du procès lañ bëgg bu dee ñun duñu kaas euh, li li dëkk bi li li métti sénégalais day wax lu ko neex moom xanaa barki Demba Ndiaye la commencé kaas le PDS reste toujours un parti boo xam ne si côté population bi moom lay nekk ñun nag duñu saagawaatee duñu xëb xëb yi ñun lépp lu ñuy def si yar ak si discipline moom lañ koy teg bu fekkee ku saagawut yuuxuwoo amatewoo soxlawoo euh, jéemoo seet sa buzz opposé woo kon nañ xool ban façon opposition moo war a am moo war a am Sénégal le PDS n'est pas encore une fois dans le populisme PDS parti bu responsable la opposition bu responsable moom la parce que dëkk bi formulaire ñun ñoo ko tabax ci côté infrastructure nag duñu nangu kenn di ko yàq képp kuy manifester na nga manifester pacifiquement képp ku am lu muy kaas na nga ko kaas teg ko si ak si ay règles te le PDS a toujours pris eh, des décisions allant dans le sens de, la preuve mais eh, eh, euh, rapport cour des comptes bi wàllu moo si ñëkk def conférence de presse euh, ne ne def si engagé wu euh, si assemblée bi pour agir à telle enseigne que les ministres se rendent compte pour affaire ba ñu nekk sans suite donc nit ñi di bàyyi di jël lu leen neex. di si ëpp critiquer PDS di li nga xam ne moo moo arrangé PDS bon je pense que question mandat bi sax moom PDS leer na si man en tant que juriste de formation sama position leer na si parce que benn position la si am mooy Macky n'a pas le droit de faire un troisième mandat l'article 27 est tellement explicite à tel enseigne que même les tu n'as même pas besoin d'être expert en droit exégèse en droit pour que tu xam nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mandat durée mais nous, malheureusement si durée la bëgg alors que article bi waxul mandat la wax te Macky def na benn mandat mënu ko Il na mandat kon et encore lettre beaucoup, il constitution esprit ak lettre bi leer na nul ne po faire plus de deux esprit bi mooy bu lettre bi xawee fulu ñu interroger esprit mais esprit bi tamit leer na mooy moom moo ne il venait pour régler definitivement la question de la limitation des mandats et non la durée des mandats il faut mu leer leneen li mooy il vient pour dire que je vais verrouiller la constitution par des clauses d'intangibilité clause d'intangibilité mooy clause yooyu nga xam ne buñ buñ xasee bu dugal yenn dispositions yi kenn dootu ko mën a changer et boo demee si article 108 de la constitution encore une fois dañ koy gis kon foofu leer na nañu Macky n'a pas le droit de faire troisième mandat éthiquement moralement moralement du moins juridiquement amu ko donc nit sa kaddu da nga koy sàmm en plus duñ ko duñ ko bàyyi muy def troisième mandat bis bu fi jëlee décision naan day def troisième mandat il nous verra sur son chemin parce que duñ ko nangu. bon man je pense que parti démocratique sénégalais bon peut-être ñi nous dem ñi nga xam ne ñoom juste bi Abdoulaye de que euh, le pouvoir Nous, c'est vrai le parti jox na c'est des anciens ministres c'est des anciens directeurs généraux malheureusement nous n'avons amul kenn ku ci des C'est un seul ministre pratiquement moo des wala deux qui ki Khadim Gueye la président conseil départemental ay Aline Diop ñoo est nekkoon ay ay anciens ministres ba fidèle ay le chargé euh, Moi Abdoulaye kii kan Abdoulaye kan Abdoulaye Racine Kane du moins voilà peut-être quelques gens yi nga xam c'était des anciens ministres qui ont fait ñoom donc lolo. dañ koy ñaawlu tout, parce que le PDS a beaucoup fait pour ces gens-là dañu waroon mm, la reconnaissance la sincérité et mais pas démocratique fi mu actuellement 7-8 ñi fi nous sommes ñi nga le parti définitivement nous fi nek le parti démocratique sénégalais day ñëwaat au pouvoir té ñu koy xeex sen pour que parti démocratique sénégalais donc génération bi fi nek ni ak li parti démocratique voilà manam li 7 li cinq, pour manam porter à la magistrature suprême au soir du 24 février le frère le frère Abdou Karim écoutez euh, <laughs> la loi euh, madame, le candidat. Abdou Karim Wade Abdou Karim président Karim Wade li mu waroon na purgé si peine purgé na ko cinquant la donc jeex na kon amatul benn obstacle juridiquement parlant bu ko mën a empêcher mu bokk si élection yi loolu kenn kenn déewuñu ko ñun ñoo ko jàng ñoo ko liir ñoo xam ni kenn mënatu ko empêcher mu bokk kenn déewuñu euh, Karim Wade nag day ñëw li mu doon xaar mooy ñu réorganiser. le parti en montant des secteurs, c'est déjà fait. Nous sommes montant section Bientôt, ce sera fait. Et à partir de ce moment-là, tout le Sénégal, dans, toute la, dans toutes les fiefs du Sénégal, nous avons une organisation limpide du PDS. Nous organiser le parti également au sommet, investir en, tant que, en tant que le candidat du PDS. Nous donc, je pense que quelqu'un ne peut empêcher mon sélection parce que euh, c'est la population sénégalaise qui a besoin du président Karim Ouad en tant que l'homme de la solution. C'est lui qui va être le sauveur. Parce que Sénégal, nous un sauveur, et le président Karim Ouad va être le sauveur de ce pays. Vu son expertise financière, vu l'agenda, vu l'agenda, vu l'agenda, si ministère euh, les résultats Il y a am jafe-jafe étudiants yi am ci logement ñun yàlla dimbali nañu man ba ma fay nekk nekk président de commission sociale maanaam yoroon logement yoroon bourse mën nga demander étudiants yi mu bokko génération yëpp dama daan jox waa Mbàkke ay chambre yu bari très sincèrement et puis ku ma xam ku ku dëkk Mbàkke boo ñëwee si man demandé ma à temps chambre dama lay loger dama daan jox amical bi chambre di leen ko jox que ce soit chambre góor chambre jigéen di leen jàppale appelé, lépp di leen jàppale si seen insertion sur le plan syndical di di appelé, jàppale di leen encadrer pour ñu insérer sur le plan syndical parce que j'étais de ceux qui pensent qu'il fallait que étudiant Mbàkke yi ñeme syndiqué ñeme xeex bi foofu ñeme ñeme raag bi foofu pour mën a am ay responsable pour mën a am ay privilèges mën ko jox waa Mbàkke je pense que c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut qu'on de faire également mairie bi également na pas appeler ces appartements, parce que su ma juumul d'après mes informations étudiants a un appartement du yoon mënuñu am ministre te duñu am appartement ministre yu sérieux yëpp immeuble la ñu jox seen ay étudiants donc il faut que koy lance koy le maire. waaw euh, le maire la bi ñu ko bi ko ba effectivement ñu koy xaar ay chantier yu bëri ñu koy ay ay yu je pense que bi muy falu bokkoon Euh, si discours yi mu daan wax fal leen ma incha allah ma soppi euh, le visage euh, de la commune de Mbacké malheureusement ba tey il faut oser le dire le visage de la commune de Mbacké n'a pas encore changé changé wul na mu meloon depuis Iba Gueye <laughs> noonu la meloon donc maa maa ngi même maa ngi jéggalu mais suñu maam yi yi gaañu yàlla suuf sedd seen kaw bu ñu buñ bu ñu jugoon deqaliku bu ñu ñëwee ku si nekk fa nga bëgg a ñibbi da nga fay ñibbi kon donc foofu Mbàkke évolué wul Mbàkke du point de vie infrastructure gisuñu lenn du point de vue assainissement gisuñu lenn parce que barki de moo njaay la fi ay ndox taataa yu donc pour man c'est le moment ñu gas Euh, faire ba canalisation donc du côté emploi également ça reste beaucoup de choses même s'il est en train de euh, de faire des efforts dans ce sens donc pour man dal ku xool Mbàkke xamni ni lu bari la fi nekkoon ba tey moo fi nekk ça bi ba tey eh, eh, ñu ce koy ñaax mu gaaw parce que ça intéresse les jeunes. Donc il y a beaucoup de choses qui restent à faire, nonobstant le fait qu'on voit que sous peu de choses il est en train de faire des efforts waaw sama xalaat bi ma am si si si question d'actualité actualité boobu intéressé woon waa Mbacké si recrutement yi nga xam ne monsieur le ministre commencé na ko def man en soi les recrutements en soi je n'y vois aucun inconvénient parce que loolu la ñuy xaar si ministre bi mu jox liggéey ñi nga xam ne Mbacké dañuy dëkk doomu Mbacké parce que Mbacké fa ñu war a jàngee jàngee nañ ko fa ñu war a demee uti liggéey je pense que demee nañ fa uti liggéey mais ba léegi amaguñu insertion les jeunes sont là le chômage bi dafa fa doy waar donc bu ñëwé paré pour commencer jël des actes allant dans ce sens dañ koy magnifier donc mais nak xam nako def si si transparence nako def si manam lo xamné manam euh, impartialité lay am lo xamné manam maanaam euh, si kii la koy tek manam euh, équité équité moy fexé ba laal toutes les sensibilités gis na ne amna na si ñoo xam dañ ko daan opposé sax boole na leen si ñun ak ñun loolu c'est à magnifier mais dafa dess équité bi dafa des parce que aussi man ci ma dëkk muy quartier boo xam ne quartier teenu njaago la dafa am maanaam benn sensibilité bu fa nekk mes frères yoo xam ne ay kii lañ euh, catholique lañu ñu ngi si nous aimerons que également ñooñu gis seen bopp si li nga xam ne euh, moom mu ngi koy def en tant que fonctionnaire mooy jox nit ñi liggéey maire la warul xool ku ànd ak moom warul xool kan moo ànd ak man dafa war a agir à telle enseigne que équité équilibre bi mu gérer ko donc côté boobu ñun amuñu si luñ ciy kaas parce que noonu la ko communiste yëpp di defee je pense que mu koy jaarale fi mu ko war a jaarale di point de administratif mu war a def mu ko war a def kii vacant post vacant lay joxe donc côté boobu amuñu luñ fay sikki sàkkal lu moom c'est impossible envisager wuñu Karim Wade bañ de candidat Ben option la ben am objectif la ñu am Karim Wade candidat lay nek parce que yoon mënul yoon empêcher tu ko mu nek candidat wax naa ko sama samay cadeau, donc du Macky Sall moo empêcher empêché mu nek candidat citoyen la nous sommes en train de réorganiser le parti il va nous venir le plus rapidement déposer candidature utiliser autoriser ko mu inscrire donc mu ñeu xëccoo je je pense que euh, question je ma xalaatoon de manière générale Il donc euh, je ne vois pas de question donc les ma doon posé parce que pratiquement j'ai parlé de beaucoup de choses qui concernent la localité qui concernent mon engagement et qui concernent le Sénégal quoi